إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله بقي نيغي سانت سونو بروم سبحانه وتعالى مي جام دي وار صح ديكو سانت فم مانا تول ak lum mëna nekké ñi sétane yalla kenn yeyu won ñu koy jaamu ku dul mom ñi sétane yonent yalla muhammad la yoni won ngir mu jàngal ñu naka lañ koy jaamu yàlla yàlla julli ci moom ak jabootam ak ñi koy roy ba ila yumi diin gannaaw loolu moo ko jullit suñu borom day farataaloon nañu benn weer muy weeru koor lu yàggul dara ñu ko doon séentu yàlla dogal ñëw na yàlla dogal ne won nañu gannaaw mu war ci ab jullit lépp loo xamee ne nii boroomam sant na ko su taxawee mu daal di def la nga xam ne nag mooy taxaw seetlu ñi nga xam ne dañoo yor mbiri àdduna lu ñuy mën a organiser su organisation ba passé dañuy taxaw réunion def réunion autocritique seen biir ngir moytu erreur yi passé ngir beneen yoon ñu gën a avancé loolu it moo tax ba mbokk weeru koor romb na mu am mbir yoo xam ne nii dañ ko caa war a taxaw seetlu mooy ku nekk ci ñun di xool waa man la yonent bi waxoon ne ki nga xam ne koor gi wóor na ko daal di ci seet payug yàlla taxaw ci nam te war a taxawe dañ koy baal wala ñu bakkaar ki nga xam ne naafile lu guddi weeru koor yépp taxaw ko nam ko war a taxawe dañ koy baal ay bakkaar ki taxaw laylatul qadr dañ koy baal ay bakkaaram man ndax bokk naa ci ñi nga xam ne taxaw nañu loolu seen koor yépp mat na seen xiyaam yépp mat na loolu mbokk ku nekk da cee war a bàyyi xel suñu borom subhanahu wa taala gis nañu ne ñi nga xam ne dañuy jëflanteeg seeni moromi jaam ci wàllu commerce ci wàllu natt waaye bu ñuy jëflanteeg ñoom dañu matal natt ya suñu borom mu ne alkaani me leen di xaar lu mel noonu lay wax ci ñuy julli ca duñu matal shartiya alkaangam nga leen di xaar fa waylu lil musallin waaw loolu it yàlla wax waylu lil musallin ba waylun du nekk ñeel li saimin ñeel ñi nga xam ne dañ doon woor na am mbokk julit su dee koor nga def woo ko da yàlla bëggee loolu tax julit maadaama moom xamul xëy bokk na la nga xam ne nii mooy taxawaayam bu njëkk heure bu génnee ci jaamu yàlla mooy mu yëg ci boppam ne la ma waroon a def defuma ko mu yëg ci boppam ak manqué tey looloo tax ba islaam dafa faratal ci ñun mboole mi jaami yàlla lañ koy tëgee mooy astaghfirullah julli gii ñuy julli léegi suñu sëlmalee la gën ci lu ñuy wax gannaaw sëlmal mooy astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah mooy la gën la ñuy wax suñu borom mu ne bu ngeen ajee màkka ba pare mu ne wastaghfirullah na ngeen jéggulu yàlla su ngeen jóge arafa ñee nekkoon ci qiyaamu leyli kaanu qalilan min al-leyli ma yahjahuun wa bil asxaar hum yastaghfiruun ñooñu ko daan guddi suñu borom mu ne feebar dañuy jéggulu seen borom loolu it moo tax ba mbokk jéggulu yàlla dafa doon lu màgg lool daal lënkoog jaamu bi ñuy jaamu yàlla wéetal yàlla loolu tax suñu borom lënkale ko mu ne faalam annahu laa ilaha illa allah wastaghfir li zanbik ngal la waay xamal ne yàlla rek lañ war a jaamu muy benn en kon dogu nga jëm ci jaamu yàlla mais ndax mën nga matal lépp à cent pour cent laa wallahi kon li ciy des mooy lan wastaghfir li zanbik defal la nga man li ci des nga jéggalu ko sa borom defal la nga man li ci des nga jéggalu ko sa borom looloo tax ba mbokk jullit jullit di war a takkoo ak istixfaar xatta yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na fa nga toog di waxtaan nga la waay booy jóg dégglul yàlla naam la gën mooy subhanaka allahuma wa bihamdik ashhadu an laa ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk waaye boo ko mënagul it foo toog di waxtaan booy jóg dégglul yàlla déggul yàlla googu day nekk loo xam ne nii lu koy tëj di ko taaral su dee li ngeen doon wax lépp lu baax la su doon li ngeen doon wax ay njuumte da caa nekk déggul yàlla googu day effacer njuumte yëpp ku nekk war koo jéem a tàmmal sa bopp seytaane suñu noon bi yàlla yàlla musal ñu ci moom nee na man day doomu aadama yi man maa leen di alega ay bakkaar waaye ñu yàq sama liggéey di ma alega ci laa ilaha illa allah ak istixfaar ba kaddu laa ilaha illa allah bu jóge ci xol mooy yow dogu nga ne yàlla rek mooy yeeyee ñu koy jaam te it dogu nga ne nga jaamu yàlla boobe waaye nag ndax malaaka nga laa wallah fokk ay njuumte am bu njumte amee lan moo des su ko defee mu ne dañ may alagi ci jéggulu mi ngi noonu mbokk julit seytaane lum la man ma ne gal na waay xamal ne ba sa xel dellu say jéggulul sa borom bàkkaar ba lu mu rëy rëy yàlla bal na ko da doon gàttali lu la ci ay farata la doon tarxis lu ci ay bàkkaar su dëggoo sa xol rek yàlla bal na loolu tax kii di Omar Abdul Abdul Aziz daana def ba korite jotee muy bind gouverneur yi mu jiite woon naa leen wax leen seen xeet nañuy góorgóorlu génn zakatul fitr nañu góorgóorlu bari istixfaar wax leen li seen bàyyi aadama doon wax rabbana zalamna anfusana wa lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaasiriin yàlla ñu dee toon nañ suñu bopp boo ñu jéggalu yërëm ñu dañuy dañuy perte zakatul fitr moom mooy far rëcc rëcc yi nga xam ne nii moo amoon ci ci sa koor ci wax yaag nangam waaye istigfaar boobu moo yéege la nga xam ne mooy koor gi ndax suñu borom dana xam ne ah sama jaam bi ne maa ko santoon lii waaye yëg na ne def na kem taleel kattanam mi ngi may jéggulu li ci des man danaa ko jéggal bindal ko cent pour cent mi ngi noonu baal ko la nga xam ne moom mooy ay bakkaaram lii mbokku képp ku mën a doon même boo yégee ne matal nga rafetal nga sa wareef la ana nag koo xam ne nii moom wóor na ko ne te biir biir weeru koor ba def na lu mu warul woon a def ci guddi weeru koor def na lu mu warul woon a def ngalla waay yow yaa gën a yeyoo nag yow mi mooy ni yàlla fa ko ñëpp doon toppee yow mi mooy ni yàlla fa mooy yàlla gën a jafee bu yàlla dellu si si xel gannaaw weeru koor yow yaa gën a yeey nag ci tuub dellu ci sa borom te sa borom mooy ab tawwaab tànk su tuub mi ngi wér dañuy nangul su tuub googee mbokk bokk na taxawaay bu ñu war a taxaw ci weeru koor gannaaw bu mu paas yi suñu borom dañi koor sama koor la ndax jullit bi day bàyyi lekkam naanam ak bànneexam ngir man nga la way yoo jullit mbaar bi nga jóge ci weeru koor mu entraîné la pendant un mois yoo xam ne yaa ngi bàyyi sa lekk ak ni mu neexee naan ak ni mu neexee ñi am ay soxna ki borom kër bàyyente ci bëccëgee ak ni la ca adu yëpp ngir la ngir yàlla nga la waay loolu la nekk si jubluwaay heure boo jubatee benn mbir ak bu mu mën a doon nga bàyyi xel yàlla comme ni nga doon bàyyee xel ba ngay bàyyi lekk di bàyyi naan loolee ci liggéey ba la ci jëflante yi la ci lépp lu mu mën a doon sa dund ku nekk war nañ bàyyi xel baa weeru koor bàyyi na loolu ci man ba man du ma defee ci dara lu dul ma xam lu cay atte yàlla du ma defee ci dara lu dul ma xam la ci neex yàlla ca téere bi njëkk a jàng ci Sénégal lu koy wax laxdari loolu la sunu maam yi doon jàngale seen biir daganul jullit ngay def dara lu dul awwaleen nga xam lan la ci yàlla atte su dee la ci yàlla atte nekkul loo xam ne ni ngërëmam ma nga ca intérêt boo ca mën a am nga bàyyi ko mi ngi noonu comme ni ngay bàyyi lekk ak naan donte ne wóor na ne lekk ak naan neex na yaa ngi mar mar waaye yaa ngi bàyyi lekk ak naan lu waral loolu mooy xam nga ne ne ngërëmal yàlla nekkul ci lii loolu jurit noonu lay mel mboolem intérêt àddunaam day xool baa dara nekk ci gannaaw ngërëmal yàlla sinon dara jaralu ko loolee mbokk bokk na ci ñetteelu taxawaay bi muy julit ci biir weeru koor lu ne def nañ ko ci ceeg mbaax da ngay gis ne wóor nañu xiyaam nañu sarxe nañu def nañu lépp waaye ndax loolu dana tax doomu aadama bi yil boppam laa wallahi keroog nga gën a tiit suñu borom mu ne walladina yu'tuuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun suñu borom mu ne ñi nga xam ne def nañ la ñuy def waaye seen xol ma ngay tiit bis bu ñu dajee ak seen borom bis bu ñu dajee ak seen borom lu waral loolu mooy yàlla mu ne innama yataqabbalu llahu min almuttaqin yàlla mu ne ñi may nangul mooy ñi ragal yàlla yow def nga ndax bokk nga ci ñi ragal yàlla ba yàlla nangul la ko bari ngay gis ni lu bari ci borom xam-xam yi dañ doon wax ne ñu xamoon ne rek yàlla nangul na leen benn tuyaaba la gën a néew moo leen gënaloon ñu xëy na leen planète terre yi na ko moom lu waral loolu ndax suñu borom mu ne innama yataqabbalu llahu min almuttaqin yàlla ñi muy ra ñi muy nangul moo ñu ragal yàlla loolu tax julit gannaaw ba nga gën a def ay jaamu yàlla gannaaw nga gën a tiit ay yooyu bi mu wàccee suñu yaay Aïcha radiallahu anha laaj na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko xanaa aayu bi day mooy nankatu sàngar yi ak njaalookat yi ak sàcc si nga xam ne ñooy def li yàlla tere ba pare di tiit mu ne déedéet yow Aïcha lii mooy ñu nekk ci aj gaag umra gaag koor gaag naafila ya ba pare di ragal mbaa li ñuy def yàlla nangu na ko baa ngis kon amu ci baa yëg sa bopp amu ci baa dëppale ko ko ak sunna lii mbokk da ngay gis ne beneen taxawaay la boo xam ne ku nekk ci ñun war koo bàyyi xel gannaaw weeru koor waaye mbokk gannaaw weeru koor nañ bàyyi xel weeru koor dafa ñëwoon ngir gën noo soññ waaye mbokk mboole mi ci yàlla sunnaal xamal ne yàlla bëggoon na ko avant weeru koor di jot yow mi nga xam ne tey jii yàlla wërsëgaloon na la ngay woor yonent bi alei salatu wasalaam ngir bañ rek nga ne ay koor jeex na kon ba déwéne ci da ngay gis suñu borom yàlla tegtal ko yoon mooy weer bi ñu nekk di weeru shawal képp koo xam ne fexe ne ba wóor ci juróom benn fan suñu borom dana ko considéré ni at bi yëpp da koo woor gis ngeen ndax weeru koor suñu borom da koy ful fukki yoon man jaa bil hasana fa lahu ashru amsaliha benn weer bi nga wóor fukki weer la mu des leen moo ci des mooy soixante jours yi soo waree six jours muy soixante jours loolee kon nga gis ne suñu borom subhanahu wa taala jullit bi ba ba war a bàyyi xel loolu muy naafile boo xam ne bu am solo la donte ne borom xam-xam yi da ngay gis ne am na ca ñoo xam ne dañuy naan fokk weeru koor bi mat ngay doog a war a moor woor six jours yi doonte ne ne am na ca ñoom ñoo xam ne ca la ñu wax lu logique la moo di ne yow mi amoon boru weeru koor juróom benn fan yi di fan yi ngëneel suñu borom da koo tënk ci weer wi weeru shawwal amma fay beru weeru koor suñu borom tënk na ko ci onze mois ñu ne kon yow mi yor boru weeru koor te xam ne mënumaa fay samay bor doog cee teg six jours yi loolu day metti ci man yii neen woor six jours shawaal yi sa boru koor yi moom onze mois yëpp heure boo amee jot nga nga nga fay ko ci loole bal am na ay ay borom yi xam-xam yu sant caam sax ñoom gën nañoo woyofal loolu ñoom dañu ne su dee ne yow jàpp nga ne daal koor diis na ci yow lool te tey yow am nga bari koor baru koor yooyu fexeel ba woor ci shawaal masalan amoon nga juróom benn baru koor shawaal bi fay nga juróom benn fan yi ci biir shawaal kon dañ naan woor nga weeru koor mat na woor nga ci shawal juróom benni fan mi nga noonu bu doon juróomi fan nga am nga yéene fay sa juróomi fan teg ci benn fan doonte ne booy yéene da nga yéene moom fay baru koor bi mais ne nga fexe ba def ko ci biir shawal kon loolu di ñetti daraja daraja bu jëkk ca gën fayal sa bor yépp wala wooral sa weeru koor yépp doog a woor juróom benni fan yi wala nga woor juróom benni fan yi jàppee ko naafila heure boo amee tawfiix nga fay say bor wala nga yéene fay say bor ci biir shawaal fexe ba bor yooyu day mat juróom-benni fan bu ko matul it nga mottali ko ba mat juróom-benni fan su boobaa incha allah da nga am tuyaaba jooju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mbokk lu mel noonu la yonent bi wax ni même bu wooru koor passé koo xam ne weer wu nekk fexe nga woor ca ñetti fan da nga mel ne ku dëkke koor na am da nga mel ne ku dëkke koor ndax weeru koor fukki weer la weer woo dugg boo ci waree ñetti fan yàlla considéré ko 30 kon da ngaa mel ne ko dëkke koor may wane ne kon gannaaw juróom benn fan yi shawaal yi beneen bunte ngi noonu ca mbokk yi ki nga xam ne dafa dëkke koor kookee dañuy jàpp ne bis boo xam ne dafay faatu dañuy jàppe ne kii mi ngi faatoo ci weeru koor te xamal ni suñu borom yàlla bokk na la nga xame ne nii da koy xéewal ab jaam la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nee na yàlla képp kum nar a texeel dalay mujjeel jëf ju baax jëf ju baax ku mujj ci yow rek àddina nga jëm yàlla yàlla may ñu mujj gu rafet te mujj gu rafet mooy nga mujjee lu baax doomu aadama bi nekkoon soixante dix ans ci ci njuumte heure bu yàlla tëjee jëfam ci lu baax rek yàlla subhanahu wa taala da koy jéggal loolu muy benn di xéewal ji am ci loolu donte ne mbokk loolu da ngay gis ne mooy li gën a am solo ci lu lëm ko wéeru koor waaye gannaaw loolu mbokk wéeru koor ndax woor lañ ci doon def déedéet wallahi wéeru koor lañ ca doon def ci tuyaaba bëri na lool tuyaaba yi na góorgóorlu saxal ko kii di sufyaan ibnu abdullah ñëw na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko damaa bëgg nga dénk ma dénkaane boo xam ni na gàtt ci du ma ko laaj keneen ku dul yow mu ne ko qul amantu billah suma staqim mu ne ko neel man yàlla laa gëm gannaaw ba nga jub nga sax ca la nga xam ne mooy mbaax mbokk ak mbaax dañ koy sax weeru koor ñëwul woon pour ñu def ko rek benn weer boo xam ne nii dañ cay jaamu yàlla pare na ñu dem ci leneen déedéet ana yow mi nekkoon ci njàngum alquran mbaa weeru koor du paase nga tëj sa téere laa wallahi nga la way góorgóorlu même bu doon te ne la nga doon jàng alquran ci weeru koor jëloo ko ci at mi yëpp it bul neenal mukk nga la way julit bul neenal mukk toog bis boo xam ne ubbi woo téere bi yàlla bi jàng ko ana yow mi nga xam ne da ngaa nekkoon bari loolu ay zikru askar ci weeru koor wi nga la waay askar yooyu continuer ko loolu da ngay gis ne ca la la gën a jegeel sa borom ca la bokk gaaw a yokk la nga xam ne mooy say daraja yow mi daan bàyyi sa kër dem ca jàkkee yi naasi la coono boobu yëpp nga daj ko naasi lay def ko sa biir kër daan na ànd ak waa jàkk di julli fukki rakk ak benn nga waay fukki rakk ak benn yooyu def ko sa kër fi nga jullee gee ba fi ngay jullee fajar 30 minutes la lay dural moo nekk tuyaaba joo xam ne kenn xamul nu mu toll ay yow mi nga xamee ne nii tey it da ngaa bokkoon ci ñi nga xam ne dañuy génn ay sarax ay waay weeru koor li ci génn ci sarax bari na lool waaye it ngal la waay bàyyil xel yow it noo man après weeru koor nga saxal sa bopp la nga xam ne mooy génn ay sarax mbokk weeru koor jàngaloon nañu la nga xam ne mooy téye suñu bakkan na am comme ni ngeen ko déggee ci xutba yi passé yonente bi alayhi salaam ne ne bu nit jógee fële ak histoire am nee ko man damaa woor su insisté nee ko damaa woor ca loolu la ñuy jàngal mooy téye suñu bakkan yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne képp koo xam ne merloo nañ ko mer moomu mënoon ko génne waaye mu denc ko ci yàlla tax yow mel qiyaama bu ñëpp tiitee yàlla day feesal xolam ak dal xel te mooy yàlla dana ko jéggal yërëm ko yàlla yàlla boole ñu ci ñooñu kon mbokk weeru koor loolu la ñu war a jàngal mooy jéem a téye suñu bopp jéem a jéggale jéem a bale képp ku ñu naan nag buñ la tooñee na nga bale am maa yow nga dem di tooñ loolu moom xel xalaatu ndax ki xalaat ne moom ku ko tooñ sax da koy baal ko mel noonu du xalaat mu ko di dem tooñ keneen loolu it mbokk ñu góorgóorlu waat suñu borom bokkoon na ci tawfiix bu ñu defal weeru koor bu jotee dañuy tënkal siyaatiin yi mag yi ñooy maradatul jaan nga xam ne seen liggéey yëpp mooy yàqal doomu aadama yi weeru koor jotee yàlla def fitna bàyyi leen loolu tax ba yow julit foo tollu jël musul ci seytaan heure bu sa xel traversé loo xam ne nii nekkul ngërëmal yàlla xamal ne ci seytaan la jógee gaawal muslu ci la nga xam ne ni moom mooy seytaan tey tamit mbokk julit ngeen xam ne lu baax loolee ngeen di def day tax ba heure boo xamee ni saxal nga ko boo feebaree yàlla continuer la ko di la ko bindal boo tukkee yàlla continuer di la ko bindal mboolem naafila ya ngay def sa kër yonente bi alei salaam nee ne boo tukkee dañ la koy bindal boo feebaree dañ la koy bindal soo demoon ba lottu da ngaa màggetam da ngaa naaxam lott mënatuloo ko maadaama ba ngay mën yaa ngi koy def dañ la koy bindal ba baa ngay daje ak sa borom lii it gën noo ñaax ci ngalawaay ñu bañ a jël la nga xam ne mooy jaamu yàlla googu rek jagleel ko ci la nga xamee ni nii moom mooy weeru koor mbokk jullit il faut ñu xam ci ne suñu borom yàlla it jaamu yàlla giñ koy jaamu day moo taxoon mu bind ñu loolu doo nga taxoon mu bind ñu waaye it gëmal ba tey ne du jaamu yàlla joojee day moo lay tax a tabbi aljanna la lay tax a tabbi aljanna mooy njéggalu yàlla ak yërmaande yàlla looloo tax jurit fu mu mën a toll day xeeb la muy defal yàlla ndax yàlla kenn mënu ko fay xéewalu ngay gis xéewalu ngay dégg xéewalu ngay dund kenn mënu ko fay yàlla waxumaa nag di yaakaar àjjanaam de looloo tax ba lépp loo xam ne yàlla sant na la ko yow dañ cee def sa kéemtalal kattan ba pare nag daa di yëg sa gàttal ñu ci loolu boole di ñaan yàlla foo mën a toll loolu nga xam ne moom la ñuy tëjee suñu xutba te mooy ngeen yàgg ko dégg la nga xam ne nii mooy borom xam-xam yu jëkk ya bokkoon na day lu ñu daan wax ey waay woor nañ ba koor gi jeex na ak a neexoon ñi xam ñi yàlla nangul ñu dem félicité leen ak a neexoon ñi xam ñi yàlla nangulul ñu dem jaale leen mi ngi noonu ak a neexoon ñi xam ñi yàlla nangulul ñu dem jaale leen te moo ko xamal ne mboole mi jaamu yàlla noonu la mel amul benn jaamu yàlla bu ñu yàlla sant lu dul am na ci ñoo xam ne seytaane yàqal na leen jaamu yàlla googu du leen jëriñ dara ci yàlla subhanahu wa taala loolu tax borom bi jox ci exemple li gën a màgg ci li ñu defal la ci kaw suuf mooy julli borom mu ne ko waylul lil musallin alkaanga ñen la ñuy julli mooy ñan mooy ña koy sàggane naka noonu yi tamit koor gi mi ngi noonu loolu tax ba dañu naan borom xam-xam yi njëkkee dañ daan def bu ñu wooree ba weeru koor passé fu seen xel demee ci weeru koor ñu ne ah yàlla yàlla nag ñu nangul lañ ca def koor ga xiyaam ya sarxa ya askaar ya njàngam alquran ma ay yàlla yàlla nag ñu nangul lañ ca def suñu demee ba koor gi des juróom benni weer ñuy ñaan yàlla yàlla na ñu fekkaloo weeru koor yàlla na ñu fekkaloo weeru koor ñu ne ñoom nii lañ daan séddalee la nga xamee nii moom mooy at mi yëpp su ko defee mbokk weeru koor mi ngi nii dem na lii di ay taxaw seetlu yoo xam ne ku nekk ci ñun jàpp nañ ne bu ko bàyyee xel mu sell ci xolam mu sincère digganteem ak boroomam incha allah lépp loo xamee ne nii defoon na ko ci lu baax yàlla dana ko nangul sàmmal ko ko lépp loo xam ne ay njuumte la woon yàlla dana ko ko jéggal soppil ko ko defal ko mooy ay tuyaaba te la nga xam ne mooy njéggalam la nga xam ne mooy yërmandeem yal na yàlla subhanahu wa taala nangul ñu yal na yàlla jéggal ñu yal na yàlla yërëm ñu mboolem rëcc rëcc bi def ci chahru ramadan yal na yàlla far ko soppi ko defal ñu ko muy xasanaat mboolem loo xam ne nii lu baax la yal na yàlla ful ko ful yoo xam ne nii dana tax ñu texee heure bi ñuy taxaw ci kanamam yal na yàlla rafetal suñu mucc jéggal ñu jéggal mboolem jul yi nga xam ne ñoo ñu jiitu yal na yàlla barkeelal ñu njaboot gi def ñu set ñuy sedd suñu xol adduna ak alaxira mboolem suñu fitna boo xam ne dafa nekk ci suñu réew wala mboolem réewu julit yal na yàlla teggi ko te remplacel ñu place la nga xam ne mooy aafiya musul ñu ci képp koo xam ne day yàq musul ñu ci képp koo xam ne nii day taal ay fitna allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi laxirati xasana wa qina azab annar subhana rabbika rabbil izzati ama yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin